jërë ngeen jëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte jàkkaarloo waat ak yéen nuñ koy defee saa su ne wolof nag def na lu def du waxul lu ay di njàmbat démb moo nekkoon 29 décembre 2019 fee ci stade Jom Iba Mar Diop ñaari ndaanaan doon fa woot doon fa bëre kenn ki di Alioune Seye numéro 2 mi ngeen xam mel mi war a bëre ki nga xamante ne mooy Tapha Mbeur mbokk yi am loo xamante ne jot naa xew ci làmb ja Alioune Seye numéro 2 daan Tapha mbër jël bu amul Alioune Seye junior daan Tapha Mbeur jël bu amul benn werante Alioune Seye ñoo ngi lay nuyu. waaw jëli ñoo ngi lay fay gannaaw ba sant yàlla julli ci yonante bi sant suñu ñaari waajur santaat suñu sëriñ maam Malick Moussa Mansour di la wax yàlla na yàlla na ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam ak kanam ak kanam. santaat sama sëriñ sama xarit sëriñ Babacar si yàlla na yàlla yokk ay leeram. taf ñu ci barkeem ci barke yonante waaw. nga bëreeg Tapha Mbeur démb. avant combat bi combat bi ci ñaata weer nga ko jël. combat bi mun naa la wax ni avant tabaski laa ko jël. Mm-hmm. waaw fekkoon nañu nag ñuy entraîné ñu nekk ci ay entraînement. Mm-hmm. waaw dafa doon jël combat bi rek yokku cere dooli ñeex. Mm-hmm. bëggoon Tapha Mbeur yaa ko choisir wala promoteur bee la ko. <laughs> Tapha Mbeur choisir Tapha Mbeur ban loolu ban rendement la ma amal man kay promoteur moo ma proposé Tapha Mbeur. moo waxtaan seeg ñi ma war a waxtaanal euh, ñu déggoo ma jël combat bi waaw. lan moo taxoon nga jël ko da ngaa yaakaaroon ni day yomb ci yow wala. non demul noonu c'est que moom Tapha Mbeur moo bëggoon a man moo bëggoon a man ndax moom amoon na yenn adversaire ndax euh, depuis daaw combat Assane njaay bi Marley booy Bawal. Mm. waroon nuñ ci bëree man ak moom mais ci man la desoon man maa ne bëriwuma ak moom saison tijji ñu waxaat ma ko. Mm. loolu moo tax ma jël ko. loolu rek moo tax ma jël ko. nga jël ko am dénkaane yu bari yoo xamante ni dénkaane nga ko ci sa open press mu mel ni li nga waxoon ci open press bi yëpp du nga ko indaale ci làmb ji. Mhm. waaw mooy xam nga démb ku xool làmb ji xool nu mu fa tëddee xam ni junior waaj na waaj na ci nu mu war a waajee lépp. Mhm. waaj naak samay mbokk waaj naak waaw waaj naak samay xarit. Mhm. waaj waaj naak ñi may dëkkal waaj naak ñëpp daal. ba ba ma xoolee démb xam ni démb ndam rek moo ma jigoon. waaw ndam rek moo ma jigoon démb waaw. bi ngay départ di génne sa kër jëm làmb ja loo yëg. ndam rek man moom chaque jour dama yëg ndam rek laay yëg ndax xam naa ni fo bi mën naa ko euh, mën naa ko trop waaw te tamit euh, xam naa ni jàmbaar laa ci. waaw mm. xam naa ni jàmbaar laa ci mais nag doole nag moom kenn amu ko yàlla rek ko am. Mm. waaw mais man xam naa ni man ñi may dimbali xam na ni man mii jàmbaar laa mm. waaw. nga dugg si ci làmb ji gis Tapha Mbeur dugg si yéen ñaar ku njëkk a dugg si. moom moo ma jiitoolu yàgg dama xaw a tardé ndax circulation bi moom moom moo ñu téewoon. Mm. waaw dama xaw a tardé mais circulation bi moo ñu téewoon quoi. Mm. waaw. bi nga dugg see gis Tapha Mbeur loo yëg. non li ma li ma li ma yëg rek ku ku ku jàkkaarloo ku ne. Mm. Tapha Mbeur dama jàkkaloo ñu ko gën a os ñu ko dàq bëri ëpp ko doole ëpp ko sañ-sañ bëri na ak ñoom kon nag bëri Tapha Mbeur dugg si di ko di ko bàyyi xel noo kon ma bàyyi bu ma doon dama dugg si di ko bàyyi xel non kon ma bàyyi bëri dem seeti leneen waaw. sa combat ak Tapha Mbeur moo nekkoon sa ñaata komba dix-huitième combat. ñaata victoire. treize victoire. cinq défaite. kan moom kan la daan. man kan ak kan daan. double moteur moo ma daan. Mm. mbay guy gi. Mm. Coense mm. ak Forus. waaw nga daan ñan ak ñan. waaw ñi ma daan moom wax dëgg yàlla mën naa leen nekk fii. ñett wala ñeent. ñett waaw Batista daan naa waaw daan Brise mer ah. daan bébé Modou daan Mbaye Diouf daan Cheikh Niang ah daan Burutan daan Filikis ah euh, daan Jibi Faye waaw bàcc bàcc euh, loosoo loosoo bu école Baccaras waaw ah daan tigr daan Buru Tan ah daan daan daan Tafambar démb kon làmb daan mais Alioune Seye li ma jaaxal mooy li fi lim ñëpp ay ndaanaan lañ ci làmb ay champion rek nga daan nga tourné waat dem jëli Tafambar. waaw mais xam nga làmb làmb ji dégg yéen xam ngeen nu mu fa tëddee làmb moo tere di. làmb dafa tëral yi léegi làmb ji léegi nekkatul damay bëgg a bëri kii rek bëri ak moom promoteurs yi ñoom ñooy xool li leen neex ñu ne lii lii leen bëgg. te ñun ñoom dañuy liggéey ñun dañuy liggéey. yaa dégg ñoom ñooy xool ni lii leen bëgg làmb bu njëkk ba da ngay da naan da ngay taamu ki nga war a bëreel wala buñ ma joxul diw du ma bëre. yaa ngi dégg Ama Baldé ak Modou Lo bu doon palmarès seen commande du taxaw. ah Lac de Guiers Boy Niang ba bë bërki Demba Ndiaye leen fi bëre. te maa ngi dégg sax ci ay rumeur ñu ne Balla Gaye Boy Niang taxaw na. waaw mais yooyu yëpp ñoom bu la neexoon ne ñoom duñu bëreel kii mais léegi làmb ji léegi moo toltul foofu. kon daal grand contre dafa xew moo tax nga ne naa may Tapha Mbeur sans. non Tapha Mbeur dégg lu ma la nee nee naa la nee naa booy man man Tapha Mbeur ndaanaan la. Mm-hmm. champion la bërekat la. góor yàlla dëgg la. Mm-hmm. mais nee naa la ndaanaan ndaanaan rek koy daan. soo xoolee Alioune ñu ko ñu ko daan ñëpp ay cuune lañu. Mm-hmm. ñi ko daan ñëpp ay cuune lañu barke alxuraan ndaanaan ndaanaan rek ak ndaanaan ñooy daje mu neex. yaa may dégg. mais yàlla baax na. nga expliqué ma sa combat bi parce que bi ngeen duggee yéen ñaar dem ngeen ba benn moment dégg naa coow lu rëy amoon na ci làmb ji ci diggante ñaari mbër yi avant ñuy bëri. non ñaari mbër yi moom bu dee ñaari mbër rek ñoom coow coow ñu. yaa may dégg mais dafa am ñoo xam ne ñooy ànd ak yaa may dégg man déggul ma wax man ñi ma àndaloon démb dal ba may dem dama leen a yàpp mm-hmm. ñu yàpp leen yaa may dégg mais nag doo gis euh, ñoom seen camp diw diw saaga di mm-hmm. def ay affaires yaa may dégg mm-hmm. nee naa la man moom su may bëree man moom sama gars yi xam na ni man su may bëree man moom kenn du ma sécurité maay sécurité sama bopp man moom mun naa sécurité sama bopp waaw du ma du daw di wéeru ci kenn naa nga gis nga dafa am bëri benn instant daw na dem jëli béjjën mais làmb la quoi Papis xarañ loo wàcc dégg naa xam rek yaa ma gën a xam mooy mooy loolu. waaw dama bëgg a lancer benn message rek Papis moom du mbër musul takk ngemb. yaa ma dégg. moom mënul lijjanti dara dara mënu ko lijjanti. waaw dara mënu ko lijjanti. moom musul bëre musul takk ngemb mu amul lenn lu muy lu muy mën a conseil mbër. yaa ma dégg moom na yam ci sotti galaaj rek moom mu yam ci. yaa ma dégg mais ay affaire nii nii nangam nangam. di di mu def ci làmb. non démb yaa ngi ko xool ba cooli ba cooli kii yooyu yaa ngi gis mu ngi wàcc di wax lu ko neex demul taxaw jumukaay dafa am di wax yaa ma dégg. Mm. di wax ay wax way wax yooyu ne nangam yooyu amul moom sotti galaaj tax nit ñi xam ko ñun dañoo xeex ba ñëpp xam ñu di bëree di daan nit ñi xam ñu yaa may dégg. kon moom sotti galaaj tax mu siiw kon na yam ci sotti galaaj yaa may dégg mais moom moom demb amul leen lu mu fa mun a amul démb dara lu mu fa mun a jëndi démb waaw li yàlla dogaloon daal mooy lii ndam lii yàlla defal nañu ko maa ngi ñaanal dafa mbër bu amatee combat bu dul ikiri waalo bu bëriwul waa yëmbal waaw yàlla na ko suñu borom defal ndam. si balaa ci combat bi bi ngeen duggee ci digg géew bi. ñaar jot ngeen waxante ay kàddu. non ba tey déggalu ma la moom waxul ma wax. Hmm. yaa ma dégg mbër bu ma respecté la moom it moom it moom respecté na ma. Hmm. dépassé wu ma joxu ma defu ma joxu ma benn kàddu boo xam ne kàddu kàddu boo xam ne kàddu dépassé la yaa ma dégg waxul ma wax lu dul émission bi ñu duggoon benn jour ñu dugal ñu benn émission si la waxee ma wax wala ma wax mu wax yaa bu dul bu dul loolu làmb ja ba de ba kii musuñu wax dara loo xam ne wax ju ñaaw la. wala wala mu wax ma wax ju ma dépassé non boobu yaru la. ngeen bëree arbitre bi sifflé noo bëree. waaw li ma bëree mooy wax naa ci open press ba naa ne làmb ji nekkul ju gaaw làmb ju nuy cons la. Hmm. déglu ci ay. waaw ah, wax naa leen wax naa leen am naa ñu mu war a dégloo. lu ma wax ma bëri ko rek moo ma bëri ko. waaw ndax ñoom xam na ñi ma wër ñoom xam na ni man daanaan laa. su ma juumul su ma juumul rek su ma juumee rek <laughs> ku ma daan rek damaa juum. barke alxuraanu karim waaw daan rek damaa juum mais su ma ko tegee ci yoon def li ma war a def non Modou ma gaaw a daan. arbitre bi sifflé na Alioune Seye 2 moo féetee Alioune Faye Junior moo si été càmmoñ Tapha Mbeur moo féete ndijoor arbitre bi sifflé na noo def. waaw ni ma def mooy maanaam di ko conseillé rek benn benn di ko xool. xam mm. moom démb li mu indi woon mooy xeex te xoom Alioune Sèye Junior xam ni Tapha Mbeur daa ko xeex. Mm. mais démb dañ ma yab. nangu moo sax yëkkati sama loxo mu koy mu koy dal muy am lenn après ñu ne ma waxoon naa la ko soo xoolee li muy dóor yëpp damay moytu rek jàpp ko rek laa bëggoon jàpp ko rek jàpp naa ko ñaari yoon mu rëcc. jàpp naa ko ñaari yoon mu yër mu rëcc waaw troisième fois bi nag moom si la yàlla nangoo. waaw ma daan premier site bi dafa am ñu ci gis. Euh, site jotul am walla boog gisaguñ ko wala sit am na ndax ñii nee nañ am na ñii nee nañ amut euh, ki ki nekk ci ci kaw lalam moo la gën a xam màtti lalam premier bi loo def ba Tapha Mbeur war la ndomb. waaw mais dama glissé dama boog ko ñu ñaar ñëpp doon doon glissé te boole kook mooy maanaam dama gaañu ci tànk. Mm. blessure laa bëri daa bëriwaale lundi kon tey jii laa gaañu woon entraînement ba sama zone bi déboîté mais man du ma ma xam ne xam ne man man du ma yàq làmb. Mm. ci action boobu ma ko jël dégg di ko tegal si si dama zone am dale ci ci ci ci ci mm. a a doomu aadama at doomu aadama mm. si la zone am yaa may dégg si laay def action ma tarxiis su ma tamit moo tamit dafa tarxiis dafa tarxiis daal dóor benn coup perdu. coup perdu bi daluma léegi nag ba may wër ndomba si ma dóore coup bu dal yaa ma dégg tekki naa wër tekki naa wër ndomba bi di kii moom mu daw. daw daw génn géew bi daw génn géew bi moom tey noonu noonu ma jekkoo su ma ko jekkoo noonu. Mm. du ma ko yërëm de. waaw mais moom bi ngay tekki wër ndomba bi dama gis moom mu daw génn waaye bi muy génn dafa jàpp loxo bi waaye am na ku mu dajeel koo xamante ni ci yow la bokk. kooku déedéet. kooku kooku laalu ko de kooku laalu ko boo xoolaataan affaire bu baax a baax kooku ar ah, dafa gis arbitre di siffler ar ah, dafa gis arbitre di arbitre di def nii yaa ma dégg muy daw di jëli làpp taaka bi ma dem def nii boo gisee yaa ngi gis si euh, saa bu may bëree maa ngi def nii maa ngi def nii hmm. léegi nag baat bi defee nii si lay dawee di jëli la di di di di wax dafa dajeeg Tapha ma dégg la bu si la di ko kii mu génnaat bi muy dajeeg Tapha Mbeur si amagul de dara amul arbitre at waaw léegi non non boobu Tapha daa jëloon décision daw hmm, hmm. parce que moom bi muy reculer di daw mu ngi daw pour génn langue yi waaye kee intention bi mu jëloon mooy wër nañ la ndomba dafay daw pour dugg yàq làmb non non du ma ko ku kooku ku xam-xam ni moom amaateur la ci làmb ci làmb la nekk. moom du def loolu. arbitre bu mu gisee arbitre bi def nii maanaam xam nga tombé dafa waral dafa waral moo bëri. yaa may dégg moom ba arbitre bi avant Tapha Mbeur di génn boobu sifflé na. yaa may dégg boobu boobu Tapha Mbeur mu ngi daw di génn man ma daw di ko topp léegi dafa bañoon man ma dóor ko. dafa bañoon man ma door ko moom moo moo tax mu dox suñu diggante mu def nii yaa may dégg mu génn si la jàppee loxo bi. daa ma dégg kon kooku noonu bu doon bu doon bu doon dafa ñëw pour yàq laa ji ci kawam la may fekk ci kaw Tapha Mbeur. Mbër nee na action boobu quatre appuis dafa am. non yéen daal ay yéen daal ay journalistes ngeen gis ngeen di am ci làmb ja bu dee quatre appuis am nañ ko génne affaire bi loolu loolu kese la xam na xam na lu ko yoon may. Hmm. mu mu def ko. Mhm. Hmm. loolu kese la du ma fi nekk naan def na quatre appuis wala deful quatre appuis man daal li ma li ma li ma li ma war bëri naa ci bëri naa ci yoon daan naa ko. jox nañ ma liñ fa tegoon pour pour ko daan. Mm-hmm. yaa ma dégg man loolu moo amaloon importance daan naa ko pare naa ci du ma ci nekk si di waxaat ay quatre appels wala trois appels non xam ne du ko yoon may nan ko nan xoolaat vidéo yi bu baax a baax samay tànk fekkantewul sax samay tànk fekkantewul. Mm-hmm. boo xoolee samay tànk fekk ñetti arbit mu war sama kaw daw. Mm-hmm. mais daw boobu man moo ma jaaxal est-ce que nekkul yow loo jàpp ci loxo Tapha Mbeur bi ba mu gaañu mystique la wala lan la. ban mystique waxoon naa la combat bi nii ci xel mu dal laa koy entraîné ma. nga naan eh, naa li nga indi ci Arsenal kenn mënu ko. waaw ah, déggoo ma nee la nee naa la nee daanoo rek damaa juum. Hmm. su daanoo rek damaa juum. combat bi dama ci ànd samay mbokk ànd ci samay xarit laa la wax ànd ceeg ñi ma war a àndal ñëpp dem bisu dem bi nekkoon bis bis dafa dafa mbër bi moom jaaxal na ma wax dëgg képp ku nekkoon ci làmb ji jaaxal na wóor ndomba mbër wàcc ko fa daw ma jaaxal na léegi muy rek ma koo gis ci làmb moom kay moom ba mu génnee ba mu génnee ba mu génnee gisoo ko mu wax jàmbatkat appide dafa mu jàpp loxo la jàpp yaa ma dégg ma dóor ku dal la ma dóor ci bopp la ma dóor fii waaw moom déggoon naa fi am amoon na fracture ci baaraam xaw ma moog mamba la xëy na boobu moom mooy ci bopp la ma dóor ku dal jeune la ma loolu waaw xam naa loolu ma yëngal baaraam bi rek. ku boobu nag bokk na ci li la indi ci làmb ji. waaw waaw ndax dama jël ay dama jël ñetti ku mm. ñetti coup laa jël yaa ma dégg may man xeex indi mu woon démb démb rayante indi mu woon ci làmb ji li ma li ma war mooy mooy lin ma yab képp ku ma yab du du ma xam lu muy wax teel teel la may wax boo seetaanee samay combat yëpp kenn musuma mbër musuma daan jël bu leer. Mm. waaw. mbër suma daan jël bu leer boo xoolee samay combat indiwaata samay cinq défaites nga xool amul mbër mu musa daan jël bu leer dangay ngay jékki rek ñun la da fees bi na wala nii nangam nangam. dégg ma. kon moom su ma waree ndoom dafa war a dafa a yeggale action bi mais daw na génn di moom sax xam naa ni moom waxul mais gars yi nag si ginnaaw ñooy wax nangam nangam man daal li may wax daal mooy. léegi bi ngeen ñëwaatee. la site bi amee. site bi mooy noo ko daane. site bi mooy xam naa ni carrément man Tapha Mbeur lu ma jàpp ci baaraamam ma su ma ko jàppee dinaa ko daan. mais ñaari action yi ma ko jël yi ma ko jëlee déggal ma nee bëri ak blessure. cheville bu déboîté déggal genou bu déboîté di lëndi kon tey jii laa gaañu depuis lëndi laa gëj a takk di contact su ma ñëwee la dama boo ci daanu woon xam nga li la ci mën a fekk. moo ak combat bi fu mu non non maanaam xamal la promoteur bi sama nawle la. gor la gor la man gor la ay gor yoo ma jur. du ma préparé combat mu des une semaine promoteur def ci xaalisam def ci lépp. ñëpp di waaj. ñuy génn ñu ne Alioune Seye Junior dafa gaañu. jaam ak pexem yàlla ak dogalam. waaw Alioune Seye boo gaañoo da war a dem wuti mais man naa ni dafa mbër sama sama entraîneur li mu wax keroog lundi ba ma gaañoo. daf ma yóbbu daf ma yóbbu ba cee ba jeexal école bi ba xam ne maa ngi moom kese fa nekk mu ne ma junior mu mun nga bëre wala munoo bëre ma ne ko coach mu ne ma ne ko instant bi moom li may yëg ci sama tànk bi non xanaa moom su ma yeewoo suba ci kàttanu yàlla ak yonente bi su ma yeew suba lu ma santé rek man di dinaa la woo yeewu naa fi dem di dem entraînement mënu ma taxaw damay càpp di dem càpp di dem càpp di dem ba passé télé bi di daw ndànk-ndànk di daw ndànk-ndànk ba yëgg géej daw ba Malika sentiratuma luy mett ci man ma ma entraîné li ma def li ma war a def lépp ñëw ma dara mercredi jour open press bi ci guddi gi sama tànk sama tànk dafa yëngu demoon naa sax ba teg ko def def yaa ma dégg mm. mais tamit ñu ànd ak courage rek xam ni euh, Tapha Mbeur nekkul mbër boo xam ne ñun buñ ko jàppee rek lépp luñ bëgg def di dinañ ko def barke sëñ Baaba si instant bi nii sama tànk bi dafa yëngu mooy li dalantee noonu. depuis suba ba tey mun ma ko mun ma ko mun ko teg dama koy jàpp su may dem mais nag lépp sant yàlla la. sant yàlla la bu baax a baax a baax. Tapha Mbeur bi ngeen jàppante ko ëpp a ah yéen laa ah, man damaa jàppante ak Tapha Mbeur. ah nee ma gis état gis sa état. yéen dégg lu ma la ba mu ba ba néew runkung ba dajee. Mm-hmm. action boobu ba mu amee la pare ci làmb ji xam ni carrément tey jii Junior dafa décidé du neex a daan. Mm-hmm. te bu mu décidé ñoom. ah yàlla yàlla de moom moom ay ndamam di ko joxe mais xam naa ne moom su ma décidé si ñoom. non pour ñu daan ma lool loolu du yomb demb dama du bëmb ku xool combat yoo xam ne Alioune Sèye Junior tey dafa décidé. démb mystique jàpp na la ci làmb. ba déggoo loolu mystique du musuma jàpp ci làmb. maay juum rek maay indi përëx përëx rek ñu daan ma pour man ku ma jàkkaarlool man maa la mën ndax dama man damaa mën a bëre. yaa ma dégg pour man ku ma jàkkaarlool rek maa la mën moo xoolee sama combat ak Mbaye Gouy noonu la demee soo xoolee sama combat ak Vandam reculer lan ma wax. Hmm. sama coach dafa ñëw ne ko waaw. li muy wax li muy wax du ko def. arbitre le prix mën ne déj fi ma taxaw. Van Daam fekk ma fa arbitre dafa rek mu fekk ma fa. yaa may dégg. kon nee naa su ma rek damaa juum. léegi daan nga Tapha Mbeur foo jëm. dégg nga man làmb nekkatuma ci di présenté di présenté wu. làmb amateur yi xam nañ ma ñi jiite làmb ji xam nañ ma ñi ngànk làmb ji xam nañ ma kon nekkatuma mbër bi nga xam ne damay présenté sama bopp naan nii naa àll bi ne 18 combats laa def. dix huit combats laa def treize victoire laa am cinq défaites kon ñi ma war a bëreel gars yi xam na leen bu baax a baax a baax a baax. dafa mbër moom nangu woon ne ni yaa ko mag. ndax nee na magu papaam sax yow yaa ko mag. waaw mais mais mais di bëree mais moom démb da kon xanaa moom mag la xanaa moom démb daa sonn soo xoolee rapporteur yi ñu ngi wax dafa mbër dafa sonn xanaa kon moom moom lan la ah. di bëreeg di bëreeg di bëreeg sa rakku papa lu mu ko waxatee sax. magu papaam sax yow waa gis moo bare moom mi jàpp ndig. gis nga ko dem na ba ba ba sëgg boo xoolee Bécaye Mbaye mi ngi rabat naan dafa am dafa mel ni ko jeexal. yaa may dégg nan bàyyi naxante bi nan bàyyi naxante bi di jéem a bëgg lu neex wala kii nanga nangam di wax. yaa may dégg ñun benn génération lañu. danoo teel ñu ne ñun ñu ne njëkk a bëre. ndax ñun danoo màgg bëre fii moom ku fi màgg ku fi màgg xamali ko rek dangay ngay bëre sëriñ Serigne Babacar si ba may bëree boobu xoolal yàgg na. Hmm. ba bëre bëree maanaam maanaam dañu yàgg géewul ñu nekk ay booy yaa may dégg nekk ay booy di mbapat. Hmm. di mbapatantu di organiser ay làmb di dem defar suñu bopp ay téere yaa may dégg ñun dañoo yàgg dugg ci géew yaa may dégg mais ñooñu ñoom ay màgg bëre lañu man du ma màgg bëre dama leen ko chaque jour ma leen ko nee naa ci bëre fekk ay samay morom di ñun ñii ñëpp dañ dem bëre ñun ñu ni ànd ñëpp ay lañ woon. Hmm. waaw ñii doo dem ba xam ni carrément ñoom mëntuñ ci mooy loolu ñii dem ni muy mooy loolu mais yaa dégg mais ñun ñun ñu dem ànd matanu lu ma trente personnes wala quarante personnes ñëpp dañ daan bëre. fi mu toll nii ci làmb hmm. may nga sa rakk sens daan ko. Hmm. nga jëm ci foo jëm ci kaw nga jëm wala dangay mayawaat sens. dégg lu ma la nee naa la man. nekk mayuma kenn sens làmb moo may boole ñoom rek ma bëree ak ñoom yaa may dégg. man de de gars yi mayuma dégg lu ma la du may sens làmb moo may boole ak ñoom ma bëree ak ñoom. yaa may dégg su ma neexoon dama du ma du ma ak ñoom ñi ma bëreel ñi ma bëreel sama deux combats yi mujj yëpp. yaa may dégg mais làmb moo may boole ak ñoom te ñun dañ fi nekkal pour amateur yi fi nekkal. yaa may dégg man samay morom laa wax samay morom ñu jox ma samay morom. comme ñan samay morom maanaam maanaam maanaam mooy ñoom ay ñoom boy bool ay ñoom caat. caatu booy bambara dégg nga man ñooñu ñooñu man ñooñu ñooy samay moroom. jàngoro yëpp dajaloo nañ nga jël Siteu Siteu du wér de. booy bawal. caat. déggoo ma nee naa la man ñooñu ñooy samay moroom. ñooñu ñooy samay moroom. yaa may dégg ñooñu ñooy samay moroom. nan ma jox si ñooñu mu bari ak ñoom waaw. bu la fu gun léegi ne la avance booy bawal a nii nga lekk. ñetti dërëm ñetti dërëm laa wax ñetti dërëm. 15 su ma ko joxee. 15 francs ma jël ba ma jël ma jël booy bawal. 15 waaw. Eh, Alioune Seye nag ma la nee naa la nee naa la ñi ñëpp ñëwaat nan demoon ñëpp ñëwaat nan laa lay wax li ci kanam rawati bët yeneen combat yaa ngi ñëwaat yeneen ngi ñëwaat pour léegi di dem di kii non non naa am na naa la ba si di ñëwaat ak yeneen i façon. ku xool keroog démb xam ni ay ses jours ñëwaat nag yeneen at bi daan at bi daan def ma dox sa kaw def lu ma neex yaa ma dégg ba juum ba daanu mais léegi nekk fekkatuma kenn fen caatu booy bambara gis nga ni mu def armée. <laughs> gis nga ko. waaw. gis nga loxo booy. déggoo lu ma la caat ndaanaan la. caat ndaanaan la champion la dama koy nangul champion yaa ngi dégg mais suñ fi nekkee fii di taamu nii kii laay nii nangam nangam làmb ji mooy loolu. yaa ma dégg nañ ñëw ñu bare ñun suñu bi amoon jox ma jox ma kii yaa ma dégg man dama man dama bëree ñeent ñoo xam ne su ma neexoon du ma ñoom. Hmm, mooy ñan. duwul moteur ba may bëree ak moom su ma neexoon du ma bëree ak moom. yaa ma dégg dama daan bi bi brise de mer. yaa ma dégg man aw ma problème yooyu ay affaire kii nangam nangam non man làmb ku ma làmb booleel dama damay bare ba may bëree mbay gu gi war ma bëree moom. Hmm. dama daan bay juuf. yaa may dégg mais yooyu amul amul solo ba ci Tapha Mbeur mii démb yooyu amul solo yaa may dégg gars yi nañ ñëw ñu bëree ñu bàyyi taamoon tey mm. waaw ñu bàyyi taamoon tey waaw man nekkuma fi nekkalu ma fi toog caat ak ak booy bawal kese de yeneen yaa ngi fi. kon daa yow da ngaa laal sa basang. déggoo lu ma lax amuma kenn ku may taamu ku ma làmb booleel promoteur bu ma woo ku wax ma combat ma wax sama staff bu paree man pare naa. waaw loolu de mooy li wolof naan nag bu ràmb la. nag yaa koy daw waaye dawul benn nag. amul kenn amul déglu ma lax amuma kenn ku may moytu. Hmm. waaw te nag naa dëkk ci ku ma jël ñu ne risque la ku ma bëreel ñu ne risque la jël. Hmm. xëy na risque boobu noonu moo tax tey ma to ma am fu am benn benn koy boo xam ne maa ngi fa taxaw ci làmb. ku ma bëreel ba ci ba may bëreeg Batista la ba tey jii nii ku ma jël ñu ne risque la. kon léegi sonn naa ci risque jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb dégg ngeen li nga xamante ne moom la Alioune Seye Junior wax làmb nag noonu la. làmb moom du maas dabante la. Euh, euh, ki nga xamante ne mooy Tapha Mbeur euh, dafa nekkoon ci examen ñàkk na na delluwaat ànd ak ay mbokkam préparé wu ñëwaat ci làmb làmb noonu la ñaari ndab mooy dugg waaye benn mooy génn. Alioune ñu lay tàggoo tàggoo bi nga xamante ne moo du tàqali. waaw tàggoo bi mooy Tapha Mbeur di ko encouragé waat. di ko wax ni moom champion la ndaanaan la. te am na ñu ko yaakaar ci làmb. yaa ma dégg. ñaar ñu ko daan bu mu bu mu nekk bu mu defee ni moom cuuneem la wala kii. maam Balla mi ko daan war na ko daan. yaa may dégg. Aliou Seye Jor mi ko daan war na ko daan daan naa ñu ko gën a ës fuuf. li ma koy wax mooy na takkaan ngemb li xam ne am na place si làmb ji. mu yokkaat lu bari loolu rek laa koy conseillé. waa xam ne ndaanaan la ñi koy jàppale ñu kon ne di ko jàppale xam ne. ndaanaan la. waaw di santaat nag promoteur bi tegoon làmb ji mooy Assane Ndiaye Baol. Mm. maa ngi koy sant bu baax a baax moom moom ak staffu Baol production yëpp waaw maa leen maa leen di gërëm waaw gërëm ñëpp daal gërëm ñëpp sama gaay yi maa leen gërëm. Mm. gërëm sama grand frère. nga xam ne moom xaaruma ci dara day sonn ngir man. Mm. waaw mais moom xam na boppam. waaw maa ngi koy ñaanal rek yàgg yàgg bawul dara. Mm-hmm. waaw yàgg bawul dara maa ngi koy ñaanal ak soxnaam yàlla na yàlla musal ci ci cat musal leen ci seetaane musal leen ci lépp luy yàq. waaw di santaar sama grand frère yëpp sant sama gaay yi ku ci mel ni sama président fa sa fan si club Baye Ibra mm-hmm. day sonn ñetti fan la tëj palaasam. Mm-hmm. ñetti fan la tëj palaasam bàyyi jawaram bàyyi ay doomam. ñëw ci man sa guddeeg bëccëg maa mm. ngi koy sant di ko gërëm moo Diop Samori. Mm. yaa ma dégg ñëpp sama gars yi nekk extérieur ñoom euh, Ablaye Thiaw Serif mm. Mor Dieng Abdou Dakar jàpp nañ ci combat bi bu baax a baax a baax a baax a baax Bada ñëpp daal yëmbal yëpp yëmbal yëpp waaw maa ngi gërëm ñëpp di gërëm sama doomu ndey sama seex armée bu benn baraak maa ngi koy siyaar bu baax baax combat moom tamit daj nañ ci ay coono yu méttee méttee méttee. ah grand Talla Diop waaw ñëpp daal. Hmm. waaw di laa tamit sama turandoo Alioune say 2 ku ne xam ne dafa am komba waaw hmm. ah, bi mu jëm. ñàq waaw. ko xam mën na dóor mën na. déggoo ma la ñàq ñàq ñoo jàngandoo bëri. Eh. man ak moom sama wëllër la sama gaayen la sama xarit dama naan combat muy ñëw fii. mais yaa may dégg sama sama xarit la sama doomu ndey la ñàq. Hmm. mais nag day bëreeg sama papa lay bëreel. gën a jege nag gën a yay loolu de mooy Alioune Seye nga faral laaj. déggoo ma la gën a jégal féete day xal ne wërsëg. gën a jege gën a yey laal gën a gën a yey di ñaanal Alioune Seye 2 mu daan ko jël bu amul benn werante. waaw mu ñàkk tamit mu muñ. seet seet seet seeti leneen rek suñ borom suñ suñ borom defal ko ndam. jàpp na loxo Tafa mbëri def na. waaw gis nga moom moom sama lépp la mu Seye 2 sama lépp la. sama lépp la moom maa ngi koy ñaanal moom ak waa Ikiri Waalo yëpp lépp lu ñu rek yàlla na ko borom defal di gërëm mbëru yëmbal yi nekk fii yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Sina ak grand Ousse. grand Talla daa ñëpp maa leen gërëm. Kéba Kanté moom da ciy jàpp Modou Mbène da ciy jàpp Moussa Guissé Gana Kebe yaa may dégg. ñëpp rek ñëpp ñëpp. ñi nekk yëmbal autorités yi nekk yëmbal yëpp maa leen gërëm si combat bi di leen sant mm. sant waa gaale bi yi xam ne waa Kër Mbir waa Kër Mbir Ndaw démb kenn nelawul ñëpp ñu ngi yoroon kurus yi ak waa Tiwaawan. maa ngi sant ñëpp. waaw maa ngi sant ñëpp di ci jiital nuyoo bi sama doom sama xarit Sidi. mu joxal ma ko waa Tiwaawan yëpp waa Kër Matar. waaw ak euh, ak Ngañ Siis. mu joxal ma nuyoo bi yëpp waa Kër Mbir yéen wax kontaan naa gis naa bagage bu baax a baax. Mm. sant leen yéen tamit bu baax a baax yéen jiidi. Mm. di leen gërëm yéen tamit bu baax a baax a baax a baax. waaw di wax daal kontaan continuer kontaan continuer gërëm ñëpp waaw góor gu mbuub sama tàmbal masoor ñëpp maa ngi gërëm ñi nga xam ne jàpp nañ ci bés bi yëpp maa leen di gërëm gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp di leen wax daal ah, ñoom man ak ñoom du jeex bu mukk waaw même bu làmb sax man ak ñoom du jeex. làmb ji jeexee ba tey woo nga Tapha Mbeur. non yoruma numéro su ma yoroon numéro su ma yoroon numéro am. avant sama téléphone ma jox ko numéro Tapha Mbeur. waaw ma woo ko léegi léegi mm. waaye moom téléphone am nee di démb ci làmb ji daa dugg ci ndox ndeysaan xam naa moom làmb ji moom. téléphone moo dugg ci ndox waaw moo dugg ci ndox looloo ba jaaxal. non moom xam nga làmb ji démb moom koo xool làmb ji xam ni moom demb li mu waxoon moom li mu waxoon rek moom loolu la def. Hmm. Aliou Sezio sant ma ko lenn lu dul na ñëw na ñëw rek. na ñëw stade na ñëw stade rek. moom it moom démb wax ji moom ci moom la tourné moom ñëw na stade rek. Hmm. waaw moom moom ñëw na stade rek. Hmm. wax ji si moom la tourné waat. moom dafa waxoon ay gestion na ñëw ci rek laa ko sant wax ja ba tournoi si moom moom tamit démb ñëw na stade man ku xam ku xool ay gestion démb xam ni carrément ñëw na stade mais tamit ndam la indi waaw mais moom mi nga xam moom waxoon moo ñëw esaat mm. moom ñoo ne esaat. gis ngeen ne àdduna yi loolu Tapha Mbeur nga xam ne mbër yëpp moo ci dàq kaañ tey Alioune Seye koy kaañoo làmb noonu la mbokk yi ñu leen di tàggu tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko. Mm-hmm. di la jaajëfal bu baax di la ñëpp di jaajëfal ñëpp yéen tamit di jaajëfal bu baax a baax sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp. Mm. di leen wax daal ak yeneen i combat di leen gisaat benn Alioune Seye bu ñëwaat ak yeneen façon mm. waaw jàngeen jëf noonu lañ leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ne moo dul tàqali ko ba ëllëg ci wasaare làmb ak beneen daanaan mhm. jàngeen jëf jaajëf waaw